on the track, yo. Senegal. Fais moi Sénégal, gal, gal. En like the teranga. Dakar 14 internet football tv nuyu naa bu baax yax di am mbégte saa ne defal boo ko tey yi kii ko moom c' est euh, Yvan Diouf defoon naa ci moom découverte yàgg na mais démb dafa def ay déclaration yu assez intéressant euh, jëmale ko si équipe Sénégal ma gis ne ah bon booy bi mu wax moom leer na loolu te dana damay concentré ci club waaye muy Sénégal di France maa ngi nii ko mais instant yi yàgguma commencé g mais damay concentré ci club loolu dama si am benn jàngat bu xamante ne euh, leer na wax ne rek mbokk yi yéen ñi bëgg ay maillot yéen ñi bëgg casquette yéen ñi bëgg blouson Euh, du ma bàyyi di ko wax le numéro 77 352 31 01 yi ñi xamante ne nag ay plan ngeen bëgg defar seen kër xam donc mën ngeen am plan lépp mën ngeen ko am sur Senfootball TV xam nga donc euh, voilà même bi ngeen woote franchement ñu jàpp ci bu baax baax mbokk yi Yvan Diouf benn gardien maa ngi gis ci commentaire yi yéen nag ma a laaj temps yi passe defal naa leen ci vidéo waxoon naa leen aussi boo jëlee un an wala deux ans si sax def naa ci moom découverte donc mu nekk un gardien boo xamante ne man dama ko teel a bi mu amee 16 ans waa Chelsea dañu doon nekk pour jël ko déjà man je me suis intéressé au dossier je me intéressé à boy là. donc euh, boobu léegi nag boo xoolee euh, moo moo nëbba jant bi Diary Ndiaye xam nga Diary Ndiaye am na benn moment mu ay prestations si petite catégorie bi affaire yooyu mooy ñoom John Le Pegg yooyu fi coupe du monde et mais bu ñëwee euh, fii di Reims kii moo ko nëbba jant bi Yvan Diouf parce que Yvan Diouf c'est gardien boo xamante ne du côté de 3 dañoo amoon ci moom confiance moom moo bëgg bëggoon dem bëggoon temps de jeu xam donc euh, boo xoolee Edouard Mendy niveau bi mu nekkoon était extraordinaire après gardien bi stop bi fa nekkoon était pas mal moom nag euh, instant yi moom commencé jouer à savoir que xale bu ndaw la Ndivan Diouf Ndivan Diouf rek déjà 16 novembre 1999 am 23 ans à Hawaï, 1 mètre 84 euh, donc judo France et voilà mën a possibilité de jouer Sénégal pied pied fort moom droitier la. Voilà euh, voilà, contrat, c'est jusqu'en 2024, donc à euh, un an le contrat, voilà, euh, pourquoi pas prolonger du côté de Reims ou bien renégocier avec d'autres équipes. Donc pour, pour, pour, pour c'est vous voulez nous voir. Il est assez assez rapide, quoi. donc, je vais un peu. Edouard Mendy de Reims boo il Edouard Mendy le le poids moi masse bi moo parfois réfléchir, c'est ce ça donc euh, man il me rappelle plus euh, le le le Edouard Mendy de Reims temps yi mu fa nekkee ni mu daan ni mu ni mu gaawee taf taf mu teggi donc euh, man se man borom man à la place d'Aliou Cissé je tout de suite ah à la place d'Aliou Cissé damay woo Seny Edouard Mendy Mori Diaw ak gardien bi man Gomis dama koy dindi ah à la place d'Aliou Cissé parce que Gomis mooy troisième gardien mais ñii la lay ñëw pour mettre dans les bains. parce que faut savoir que jamono bi à l'heure où l'on parle équipe nationale France dañoo perdre deux gardiens donc dañ nekk di tabax kenn football dafa gaaw c'est rapide xam li nga naan soxla wu ma léegi d'ici un an mën nga ko bëgg a soxla mu jafe te instant yi mu la yóbbu ndeysaan nga ni yóbbu kii boo ko woowee suba day ñëw te gardien comme ni ma wax France ñaari gardien lañu ñàkk dafa bàyyi euh, y a des gardiens gardiens li di lañ fa wax moo fi nekk euh, Mike Maignan Areola xam nga donc y a pas un gardien Lafont donc kii mën na postuler wu comme ñeneen ñi gar football dafa gaaw c'est rapide mën na ñëw toj li muy toj ñu ne waajaa ngi nii kii mooy suñu gardien nag kaay kaay France xam nga mu nekk fa troisième gardien yow nga ñàkk alors que yow euh, boo xoolee euh, moyenne d'âge bi bi nga yor actuellement kii moo si gën a nekk boy que ça soit Modou Dione c'est entre vingt huit vingt neuf ans Seny Dieng moo si am vingt sept vingt huit ans ñeneen ñi vingt neuf yooyu ñoom ñëpp yooyu lañu am âge bi te comme ni may waxee li ma ko waxee dafa war a am beneen cycle bu war a juddu équipe nationale du Sénégal dañu war a tabaxaat yenn coupe du monde yi di ñëw dafa war a am beneen cycle fu ne ni ñu mën a waxee ne bi ay Formose moo faroon nekk ay Moussa Ndiaye mooy booy yi wax ay peut ay Malang ak ñeneen ñi fi nekk nii ah, xam nga booy yi mën naa leen fàtte nii si ñu may expliqué vidéo bi sur le milieu les Dion Lopy les Pape Matar Sarr les Pape Gueye les Iliman Ndiaye ah, Mar euh, Seko Mara Amine Sarr bi mu wax sànq Bamba Dieng donc gardien yi tamit foofu tamit dafa laaj révolution donte ñoo ngi gis gardien yu intéressant maa ngi gis ki nekk si local bi

Aliou Cissé et son staff xamnañ nañ li may wax ni bu baax baax et je pense que sur ce dossier war nañ ci mën a dugg vu que déclaration yi moy ko saa yi ma leen sax boo leen ma woon suba du ma fi ne di taxawaalu je suis très un très bon gardien et comme ni mu la à l'âge de six ans bu ñu waxee ne Chelsea la la euh nga gagné coupe Gambardella def ay prestations yu extraordinaires mala à la place de d'Aliou de dama hésiter. j'appelle le boy dama koy convoquer mu ñëw dooleel sama équipe mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi ñu leen bëggoon andil ci commentaire wala ma seen xaar ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis video bu ñëw ngeen man ko seetaan jërëjëf ba beneen.